tax man dugg naa ci làmb ba ma duggee ci làmb yàggul noonu ma am 4 combats 4 victoires te day gën a bari rek. xam naa bu baax si naa ko baax a baax a baax waaw xam naa ko baax a baax waaw xam naa si moom xeex xam naa si moom tamit bëre waaw waaye xam naa loolu mu am yëpp si kàttanu yàlla fin dina fekk loolu lépp waaw parce que ñi ma war jox liñ may jox ñi may jox liñ ma war a jox ñàkk. <laughs> day ñàkk ma jëriñu isam nga lool day ñàkk ma jëriñu non dama ko xam rek barki Seydina Muhammad dara nag taxul may may may waat nag mais dama ko teg ci bëre ak ci xeex ak ci lépp dama ko teg rek li ma mën nag laay wax yàlla nag mooy may ndam quoi waa xeex waaye si bëre lay jeex si kàttanu yàlla moom instant yi xool mu ko sax dama koy daal a ñeneen man ñeneen laay xool instant bi nii man la vingt laa mu bëri la vingt six te la boobu moom yàlla dafa defoon ndam te la vingt la waat dama koy jàppaat daan ko rek bu xeexee ma dóor ko mu daam su bëree su dawee sax ma dàq ji ko ba jàpp yóbbu ko top seen si kàttanu yàlla xam nga man su ma sax li ma wax xam nga ne moo am ñëwoon nga fi ma wax la résultat bu leer nañ ah, ñëwaat nga fi li ma li may def rek laa lay waxaat man ki ma xam moom man la xam ma ci bëre ak ci xeex foo ñëwee ma la suma waay ma bëri ak yow. lépp ñëpp xam nañ ko bu taxee ma jàpp ko daan ko. su dawee ma dàq di ko daan ko waaw si kàttanu yàlla nag te naa kolomti koo de. waaw di gërëm samay supporters ñëpp nag waaw di gërëm ñëpp ñi ma jàppale ñëpp ki may bëreel gis naa ko muy bëre dégg naa nag ku bëri wax la mais maa ngi moom ñoo mën a mayante xaalis nekkul affaire noonu ak yooyu bu toogoon ma la su ma waaye man ma toog dëgg la kon xamante ni ba man sax damay jaar si koñom koñom a xaalis nag ñaanal lu ma ko dara lu bon waaw man tamit maa ngi ñaan sama bopp lu baax maa ah, ndax moom li mu bëgg rek lay am. waaw man tamit li bëgg rek mooy am te man li bëgg mooy gën a am nag xam nga loolu ñooy may taxaas quoi. man di porcelaine la kooku du yan combat man di du ma yan combat combat mënut a rëy bii mënut a rëy ba jaaxal ñu ñoo gën yu gën a rëy yi. dama koy daan man maa koy daan man bu ma fit mii bu ci yàlla àndee lan ci mën bëre nee na dafa am doole ah ba bis ba nga xool yàgg naa leen wax lii ba bis ba ba bis incha muy yàlla day dóor kat yi mu daanu damay dóor kat yi damay mu daan moom mu ñëw prise si kàttanu yàlla man maa la ko loolu te dinaa daan ñëw ba si yéen përee përee përee ginnaaw dox waa la man maa la ko loolu bal bala fee sama père Mbaye Gueye sax bu amee combat gis nga nu muy demee daf ndax bëgg ma euh, avancer rek waaw moom nag xam-xamam mu ngi jël di ko def si ñun yaa ngi dégg voilà loolu laa am lu may wax te ñàkk jëriñu bala fee. ma toog ci kawam ñëw si plateau bi waxati ngeen dégg. voilà merci beaucoup merci euh, ñaari mbër yi euh, seen euh, ku ci ne dégg nga défi bi ñu def ñoom ñaar. ci euh, ñaari mbër yi ñax jariñu wax na buuba fit wax na xool ngeen entraînement yi euh, ñax euh, yow day dafa mel nii combat bi da ko xeeb xanaa. sigil sigil wax ak moom. xeeb sax lan la. li ma préparé rek laa mooy loolu daal li ma préparé li ma teg. waaw laa gëm ni ki ma ko teg war na mu mën a teg lii ba mu am ndam ci. te loolu ma liggéey nag moo tax ma gëm ni kii ma ko jàppee du doy. boo ko jàppee du doy. ci kàttanu yàlla. buuba. yow de nee nga yaay daan waa ji te waa ji nee na mosul daanu. ah dégg nga ma ne su buggee léegi ñu jaar nii daw ba Fass Mbao rek mu jaar nii. maa la gën a ñeme entraînement barki micro bi micro bi. billaahi wallaahi soo bëggee léegi léegi ni bu buñ tekkee ñëpp ñibbi maa ngi yow kese ñu jaar ci maaro bi fëlee ko aseg naa yeeg dugg Fass boo bëggee léegi ma bàyyi la nga diriger loola neex après ma diriger billaahi wallaahi laa du question dara ah, affaire entraînement la te yow mii xam naa ne maa la ëpp doole fuuf ku yow sama doole. billaahi wallaahi booba waaw. booba maa ngi déglu. da nga def quatre combats quatre victoire. waaw cinq victoire at bii nii. waxal cinq victoire. <laughs> waaw maa da nga def quatre combats quatre victoire. ci kàttanu yàlla bii mooy cinquième victoire. te euh. li mu wax dama ko ñii ñëpp xam nañ ñi ma xam ñëpp deux ans laa def athlétisme. deux ans. première laa jël deuxième. micro. première laa jël deuxième. Mm-hmm. si kàttu yàlla li ma liggéey kii du ma téye. jugal léegi ñu daw yi. boo du lu may téye teel a mardi ma gis nga mardi voilà daju nañ yëngu leen wax la at mardi toogal toogal toogal toogal toog leen endurance la at mardi tuuti toog tuuti toog tuuti ama ndaw yi <laughs> dama tuuti voilà non non buuba buuba may ma tuuti may ma. bu bëggee ñu may ko léegi. non non du leen ko maye. xaalisu jàmbur ngeen yor de amul maye kenn du maye. non non amul maye. ma ne bu la laalee fu mu toll nii muy yàq. bi kenn du ko yàq. yow ci kàttan yàlla combat kenn du ko yàq. voilà c'est bon buuba jëlal micro bi jëlal micro bi buuba. voilà toogal ñax a jëriñu. voilà may ma may ma buuba may ma buuba. boo bëggee boo bëggee léegi léegi léegi ñu may ko. waaw buuba voilà voilà jërëjëf. voilà voilà jërëjëf jërëjëf. per xam nga laa xamal waa toogal ni ñëwal ni non attends un rek toogal non toogal toogal rek xam laa la xamal yow ah xam na écoute ñëpp di gis booy xeex ma lay dóor da ngay déglu yaa ngi déglu da ngay déglu non ñoo far xam nga yii yëpp du du voilà buuba may ma buuba fit yow yaa may may yow voilà buuba fit si kàttanu yàlla combat bi buuba may ma demal di voilà ma ñëw waa toogal ma ñëw toogal toogal ma ñëw toogal ma ñëw yéen ñaar yéen ñaar seen combat final la. ku ci ne am quatre victoire di wut cinquième victoire. waaw def naa combat bi combat bu ko gën a riche amul. lan ngay tàggoo buba lan nga koy yóbbante ak tàggoo non man nag damay sant sama papa di sant sama yaay bu dëkk Gueule mhm. ak sama papa bi nekk Kaolack mhm. waa Lindiane Sibassor mhm. Kaba Tooki ñëpp maa ngi leen xaar ci bis bi ñu ñëw ak jàmm ak salaam ak discipline quoi ndax maa ngi ah, a may xaalis man tamit war naa xam mën a may xaalis mais taxaw ci signature di kii say supporter di koy yàq te say supporter boo amul combat ñoo lay sonal naa la dama uti combat ci bis bi di jéem a saltal yow gis nga keroog. lan nga leen di wax. xëpp nañu ma suuf non nañ ñëw at discipline quoi ñun ñëpp ñoo far on est ensemble. ñun ñëpp ñoo far ñoo bokk nday bokk bàyyi. Mhm. lii rek moo ñu ñëpp ñu ñëw waa ci bis di sant sama papa sama papa sonn ci wu baax. Mhm. mu ngi jàppante waaw dafa sonn man dama ko dimbali quoi. ak sama mhm. yaay. maa ngi sant waa Gueule Tapée écoute rek maa ngi sant waa Gueule Tapée yëpp. ñu ñëw jàpp si at waa Lindiane Kabatoki waa Fass Mbao Baye Fall yi ñoom Pa Massar waa at borom njaaj bi waa léegi waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa maa ngi leen wax ñëw si bi at taalibe Cheikh Modou Balla Dior ñu ñëw si bés bi quoi ñu ñëw ñu rëppatal ko am lu rëy indi lu rëy boole ñaari cant yi yëpp man suma waaye def ko ñaari cant cant cant yi waaw jërëjëf saawoon baawoon quoi jërëjëf euh, looy tàggoo euh, ñàkk jariñu waaw man sigil sigil sigil wax sigil dama ànd ak sama benn boy boo xam ne ku mën a bëri la Casamance la jógee waaw loolu après la kami lañ koy wax tëj na fii nii bu ñuy jeexal billaahi wallaahi ñeme naa teg ci moom euh, ñoom ñaar wóor na rasulullaay ah, def ci dara barki Seydina Mohamed ñi maa teg ci moom mun na ko jàngal mun na ko jërëjëf eh xam na ko baax sama xam na ko baax je connais booy bii nii booy bi sol njaxas buuba buuba day ñibbi tey buuba waaw laay liggéeyee doo jël suma émission pardon père jox eh, ma sa micro jox ko kële jox ko mambal jox ko mambal voilà nuyol nuyol nuyol koy woo voilà di sant suñu waañ waaju waaw maa ngi sant nag Bas Taal di sant nag ñi ma jàppale ñëpp mhm. di sant waa Kéemaan famille ak bëggoo mee ma àndal mhm. Mhm. di sant nag waa Caaroy gépp di sant waa Funjun waa Bambey waa Njee waa Kees Touba waa waa Seew maa ngi sant bu baax ne nag ni ma jàppal ci combat bu baax a baax a baax fii Bouba Dramé nañ ma si jàppale bu baax fas bu baax ma jàpp ko daan ko ci kàttanu Yàlla jërëjëf jërëjëf Euh, gars yi may leen loxo defe naa combat boobu kii final la voilà final la final boo xam ne bii euh, ñaari xale yi koy bëre di buuba fit quatre victoire la am ñaq jariñu quatre victoire la am ah cinquième bi nag su ma yoon newu ci ñoom ñaara koy reyante euh, di wax buuba fit vraiment ci fair play bi mu woote léegi na ko supporter yi dégg wax na dëgg ñoom ñooy joxante xaalis xale yi dañu nekk ci yoonu ci avenir te xale yii ma gis fii nii nii nii nii man gis naa fi ëllëgu làmb ji ñii fi toog nii rek ñii fi toog rek bu ma ko waxee war ngeen ko gëm gis naa fi aveniru làmb ëllëg fii mais nag nañ ko teg ci discipline nañ ko teg ci carrière dafa dafa jafe te communication nee naa leen mbër mu ci waxati xoolal li ngay wax communication dafa am solo ci nit combat yi fi jàll de ngeen communication yi ni mu demee kon bàyyi leen xel ci communication dafa am solo wax dafa am solo dinañ la ci naw waaye dinañ la ci xeex loolu bàyyi leen ci xel dama leen koy conseiller pour boo leen di waxati jàkkaarloog télé bi xool ni ngeen di waxee mu rafet te du tey li nga bëgg a wax nga wax ko kon mbokk yi jërëjëf euh, dañuy dem ci beneen combat bi nga xam ne combat boobu tamit derby la lan moo ko def derby ku ci ne da nga match ak booy bawol ku ci ne da nga match ak booy bawol match nul boo xam ne amateurs yi ñoo ko ñoo ko gërëm amateurs yi ñoo ne booy bawol ak maam Balla doy na amateurs yi ñoo ne woon Boy Bawol ak euh, rouge ba euh, euh, kii feu rouge ak Pape Mbaye doy na Pape Mbaye ak feu rouge ñu ne doy na Mame ak Boy Bawol ñu ne doy na muy combat boo xam ne tamit Baye Production def leen ko indil kon waa kër sek Seck dugalal leen ma Mame Balla maam Balla gars yi may leen ko loxo voilà waa kër Papa Seck dugal leen ma feu rouge jërëjëf euh, ñaari xale yooyu dañu bokk ci xale yi nga xam ne voilà may leen ko loxo gars yi Euh, dañu bokk ci xale yi nga xam ne nee naa boo nee feu rouge ne maam Ball sa xel day dem ci Pape mbay day dem ci Boy Bawal a xale bu ñuy général kente boobu defe naa ne ñaar ñi sax defe naa général la nga xaar ci combat boobu parce que ñii ay xarekat lañu kon mbokk yi dañuy dem seetaani entraînement maam Ball ak feu rouge dellu siwaat fast. One, mooy xale bi nga xamante ni juddoo jàmm gën yoroo géejawaay ak Pikine ba koy Mame Balla. ma maay Feu Rouge. maa ngi def six combat bi mooy septième combat bi waaw maa ngi am lépp victoire benn niil man booy bool waaw non yàgguma ci laa ci daaw laa ci dugg 4 combats laa am 5 combats waaw 4 victoires benn match may bëri koy dégg rek waaye dina xam ne am na problème de gone gi màgg na waaw gone gi màgg na loolu laa koy xamal non gis naa bëreem soom rek waaye man loolu yëntiwu ma ko man sama entraînement laa gis ndax xam naa li ma entraîné boo ko téye la am ji jee incha allah. non xam xam xaw ma ko xam naa ko nii rek gis naa nii télé yu bëre rek mais dara ñun yàgg na bëre ku xamul waaw.